Euh, daal li nga xam ne moom mooy dernier décision bi ndax dañuy dem euh, procès wala du demee mais procureur moom loolu la euh, loolu la sàkko mm. incha allahu rabbi ñu daal di ci kii discours Ousmane Sonko bi defe naa ni boobaak léegi waxuñu ci woon mooy vaar bi nga xam ne Ousmane Sonko dem na ko ndax nee na woon du mas a taxaw du mas a nekk ak tubaab bi di wax ak ñoom journaliste yeeg yu ni mel mm. keroog ñu gis ko ca France 24 ak RFI muy waxtaan ak ñoom ci mbiru yu baree bari ak yi ci réew mi daal ñu bari neen daal Ousmane lu tax mu ni woon du toog ak ñoom fu mu leen fekk wala fu ñu ko fekk mu jóg bàyyi leen fa loolu lañ bëgg a waxtaane ma jigéen Diop waaw euh, sooy bu mbirum euh, euh, procès boobu procureur bi sàkko wax dëgg yàlla même bu ñu demee procès it sooy bu hmm. comme niñ koy waxee rek fi ñu toll nii Sénégalais yu bëri peut-être ñenn ñi Sénégalais yi daanaka minorité la. yi nga mm. xamante ne nii peut-être ñoom ñoo nekk encore di sikki sàkk ci dossier bi ba noppi mais bu ñu gisee ni ni mbir yi demee. Mm. depuis lors et que ñu ngi gis ni souvent saa yi su ñuy gën a dem rek yenn information yi di gën a génn su ko defee ku nekk nag am nga sa sa sa euh, propos yu nga xamante ne nii c'est personnel peut-être noo koy xalaatee. Mm-hmm. mais ñëpp xam nañ vraiment dossier bi nii. certes même bu ñu ko dee yóbbu pour procès sax euh, jaratu ko parce que yu bëri ah, feeñ na ci parce que ni mbir yi tëree la comme nu ma la ko waaw mais est-ce que mbir yi ni leer na ci <laughs> procureur bi yore dossier bi xam nga amul hmm. juge bi mën naa am élément yu ñu amul mais procureur bu demee ba sénégalais yi xam ne lii jaratu ko kon moom liggéey waaw mais joxuñu leen dossier bi nag moo des dossier bi ma xam jàll lañ ko jox waaw moom lañ ko jox mais ni ñu gisee actualité yi ni mu doon génnee ak information yi ni ñu doon génnee hmm. kon wax dëgg yàlla procureur bi na xoolaat bu baax a baax mbir mi mu tëddee. d'accord euh, kii Ousmane Sonko bi nag. wax dëgg yàlla entretien bi mu amaloon ak France 24 ak RFI. Mhm. man seetaan naa ko ba mu jeex. Mhm. mais man lu ma siy wax rek mooy am na yenn sénégalais yoo xamante ne nii ba léegi nii comprendre ñu moo tax souvent ma leen di wax seen i communication. Mhm. nañ koy faxal di ko gën a yokk parce que am na ñu ndaw ñoo xamante ne nii dañuy euh, influencer ñi nga xamante ne nii moo di yenn sénégalais yi. mais nañu bi mu doon waxee loolu. toll si jamono jooju noonu ak contexte yi nga xamante ni nii moom ñaari contexte yi leen wutale bokkuñu parce que début ba gis nañ euh, bi histoire bi amee mhm. peut-être euh, actualité yi ni ko waa RFI ak waa France 24 traité mhm. euh, solo moom gis-gisam mooy que ni dafa jaarul woon yoon parce que dañu jëloon mbir yi rek yemale ko ci l'autre camp ba ba ba ñenn ñoom ñi nga xamante ne nii am am amoon nañ droit répliquer wax seen avis ci mbir mi mhm. mayuñu leen ko woon peut lool loolu moom nga xamante ne ñoo di waa France 24. le monde ak Jeune Afrique ak bépp média boo xam ne européen mais bu ñu demee ba si biir ñu gis ni. Hmm. peut-être comme ni yi di wax waxtaan am na seen diggante ñoom mu xool xam ne peut-être ñoom ñoo nekkul woon si yoon. moo tax mbir yi demee noonu. mbir yi demee noonu Alaaji. loolu li gars di wax munoo wax li ma wax rek nga ne li di wax. ma <laughs> jigéen mën na tapale de ah, <laughs> alaaji yow tamit ma jigéen kay xam naa xam naa yow la yow la doon teg loo xam naa ma <laughs> jigéen nii ba noppi nee na li gars yi di wax sorewul ak Assane xam nga keroog keroog keroog keroog eh, keroog di lool lool lool la def ma jigéen ñi di la déglu waaw donc leen la def sax kii waaw ah. loolu la defoon moom. Ah, muy li gars yi loolu la defoon kii ba nag mu ñëw naan li gars yi di wax. ana gars yi yaay yi. ana gars yi laa xamul ñooy ñan. mënoo wax rek comme ni nga ko waxee woon. waaw waaw waaw moo gën gën a am comme ni ko sëñ bi waxee comme ni ko woon. en son bu li gars yi di wax li ah, moom <laughs> mooy tappale gars yi. <laughs> pourtant ñi ñi ngi am yu ñuy wax ba léegi de doo ah. comprendre sax après. waaw non mais c'est que am. léegi ñu dem ci procureur Alaaji ji na nag daal procès lay sàkku. waaw <laughs> ah, procureur kay xam nga procureur comme que euh, tuuma dafa jub tamit dal ci seen ci ñoom. naa dafa bëgg ñoom it ñu seetalaale ci seen bopp rek. ah ñu xam nga comme que ñoom dañ tamit am na ci loo xam mm-hmm. bi ni am na koo xam ne moo fa nekkoon procureur. Mm-hmm. sëñ Basiirou. waaw xam nga ay tuuma jóg na. moom bokk na ci ñi nga xam ne tuumaal nañ leen. comprendre nga. Mm-hmm. ba bind ah, la xam naa ne ñoom it mënuñoo sàkku leneen lu dul lii ñu wax rek. léegi nag des na ci juge bi. en tout cas pour mu xam waaye daal xam nga. ma daal jàpp naa ni mhm. li gënoon ci justice fi mu toll nii ak fi justice toll nii mhm. décision bi gënoon mhm. mooy ñu jël mbir moomu moom lu jëm ci wàll kii boobu moom ñu bañ cee def affaire procès parce que loolu dina delloowaat justice fi ko nit ñi tegoon jàpp ni justice lu ñuy téye di manipule waaw ñu wane ne wax dëgg fa yàlla mbir mi demee demeewul noonu loolu nag des na ci ñi nga xam ne ah mooy li sénégalais yi jàpp son bi ñuy dégg li xew lépp xam mm. dëkk bi li xew waaw léegi li xew est-ce ma nee nañu am na enquête fu mu toll ay audio ki vidéo du témoin waaw waaw mais xam nga audio ki vidéo bu nekkul témoin mm. juge bi moo ko laajoon mm-hmm. wala déet moo laajoon audio ñu kon kay kooku boole na mbir mi. Ah, xam nga kooku di la wax loolu moom. Hmm. Eh, ku lay wax loolu waxi caaxaan parce que bu fekkoon ne juge moom loolu yitteelu ko. Hmm. du ko laaj. Hmm. ba mu demee ba laajte ko rek ba ñu ko ko rek léegi loolu loolu nekk ca biir. d'accord waaw. te ñu laaj ndaw si ndax yaa wax lii mu ne maa ko wax. waaye dama doon piégé waaye dama doon piégé. <laughs> ce que tamit <laughs> wax bële mu waxoon tamit daan ne dañu ne est-ce que da doon piégé. comme comme moom moom ay waxam wérut. xam nga sa Seck moom ne woon na waa ji waxam wérut waaye ndaw si waxam wérut mm-hmm. wax ji dafa mel ni laalo boo jàppee mbaras ci ñi jàppoon ñëpp ña ngay xalaañoo waxam jooju idi bëggatul ku koy wax bàyyil waaw <laughs> ma ne ña jàppoon ca wax ji ñi <laughs> ma jàppoon ca wax ndaw sa fi mu toll yi jëpp jëpp ku ca nekk ngay walaxu lax donc loolu mooy li ci ne rek ay ca Ousmane Sonko ca France 24 mu dem vaar de l'année laa ko mën a wax waar le val du siècle waa xam nga macha allah mooy li gars yi wax ma jigéen <laughs> <laughs> li gars yi wax sooy. waaw li gars yi wax. gars yi comme que bu wax na ba wër doom ba wax samay.